jàngat bu njëkk bi mooy que ne dañoo gis ne <clears throat> euh, sénégalais yi ba ci kilifa yi nga xam dañ leen dénk dañu nekk dans l'incapacité euh, ñu mën a waxtaan ba juboo c'est-à-dire que dañu nekk ci incapacité am un dialogue serein un débat serein loolu mooy jàngat bu njëkk bi mooy ñi nga xamante ni dañuy dem ci askan bi dagaan ba pare ñooñu bu ñu leen dagaanee ba ñu ñëw dañuy wan dañoo wane télé boo xam télé nañ ko wuute ay xalaat wuute gis-gis te terewul ñu man ko def ci yar ak teggit ak xam-xam parce que tey jii li ñu gis mooy saaga yi dellusiwaat na xeex sax gis ngeen ko malheureusement euh, waxante lu bon bi gis nañ ko te Cheikh Anta Diop daf doon wax ne dëgg dëkk su àndee ak ay saaga day wàññi doole ji te malheureusement gis nañu incapacité bi nga xamante ni am nañ ko et di rappeler fii ak ñaari fan dañuy célébrer li nga xamante ni moom mooy. Euh, génn génn àdduna sax euh, maam Abdou Aziz Sy Dabakh 14 septembre te te boo xoolee li tax mu am solo bokk na ci bokk na ci moom moo doon théoriser l'éthique dans le désaccord mën nañu wuute ay xalaat te waruñu yóbbu ci ñuy saagante ak xaxarante ak xastante loolu mooy le premier élément bi nga xamante ni dafa am beneen bi mooy euh, l'administration de l'Assemblée nationale aussi dañ ko war a pointer du doigt parce que elle aurait dû être beaucoup plus prévenante prévenante surtout mu anticiper sur la situation bi nga xamante ni tey c'est vrai il y a un vide juridique qui a été constaté mooy que situation bi ñu am peut mësuñu ci mais ñoom waroon nañu xam ne éventuellement waroon nañu retrouver avec quatre candidatures ba pare pour la sécurisation du vote beneen bi mooy li li kenn ci député yi wax mooy dañoo egg ci benn rupture de confiance boo xamante ni entre les acteurs politiques doy na waar et cette rupture de confiance cette culture du suspicion egg na niveau boo xamante ni gëm naa ne dina jafe dans ce climat la ñu bàyyi xel nag li nga xamante ni ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñu fi indi muy askan bi te tey wax dëgg yàlla doon na ma neex trop ñu waxtaane jafe-jafe askan wi doon na ma neex trop ñu waxtaane mbënn mi parce que à l'heure où je ñoo am ci mbënd mi lañ nekk xëy na sa foofu lañ ñuy seetaane xëyu ndaw ñi yooyu nga xamante ni tey moo waroon a nekk tey moo waroon a nekk l'amorce de ce débat de fond la au lieu aujourd'hui d'avoir un débat sur les places sur euh, des stratégies pour conquérir place ou telle place effectivement les places tey places yi foog nit ñu jël ko effectivement il faut que mu am ñu diriger mais lool waroon nañ ko mën a def avec beaucoup de sérénité avec beaucoup de lucidité avec beaucoup d'élégance mais malheureusement li ñu gis mooy c'est un débat Euh, de gladiateurs boo xamante ni tey euh, gis nañ ne encore ils ont bandé les muscles malheureusement alors que jàppoon nañ ne assemblée de rupture bi nga xamante ni moom la ñu waroon waroon na feeñ tey ci tenue waroon na feeñ ci retenue waroon na feeñ parce que démocratie gentleman agreement la élégance rek la su ci élégance dañee rek dara desatu ci c'est Montesquieu qui disait que la démocratie c'était c'était la vertu maintenant bon euh, n'est pas vertueux qui veut. Mais Pape, tu as résumé la situation cette rupture de confiance qui règne actuellement ci MSC bi entre pouvoir et opposition moo waral la situation euh, qu'on est en train d'offrir aux Sénégalais et n'est pas belle à voir gis nga ko wax léegi nii est-ce que à ce à ce rythme mën nañu tey yaakaar ni un président va sortir de ce xam nga il faut nécessairement ñu transcender lii li jafe li li may naqarluwaat mooy sénégalais yi dañ ñoo yónni yàkkamte On n'a pas de temps à perdre. C'est ça. Et aujourd'hui, on est en train de perdre du temps sur des questions de procédure, sur de la bureaucratie. Alors que ce que les Sénégalais attendent aujourd'hui, moi, une machine rapide pour en charge ses préoccupations et ses aspirations, ce pourquoi nous avons été élus. Dites aux Sénégalais qu'actuellement, am na ñu ñu yabal assemblée nationale ñoo xamante ni saagante ak xastante lañ fi am dites aux Sénégalais que amuñu assemblée nationale boo xam am na une administration huilée boo xamante ni dina anticiper si yoo xamante ni mën na ko bett comme li nga xamante ni moom moo am tey dites aux Sénégalais aussi que la question de l'incompatibilité bi nga xamante ni posé wu na mooy ministre yi ne waruñu nekk ci assemblée nationale la vérité aussi mooy ça pose même une question de fond mooy ki nga xamante day dem di dagaan baatu askan bi ne leen dama leen di taxawal assemblée nationale te yàlla xam na ne amul yéenee représenté leen assemblée nationale pour man c'est de la trahison par rapport ak euh, confiance boo xamante ni sénégalais def nañ la ko parce que mooy maa ngi dem di dagaan seen baat waaye wóor na ma wóor yàlla ne man tànnuma assemblée nationale damay dem rek pour remplir ay liste faire du remplissage ndax askan bi donc c' est le triptyque que nous avons toujours dénoncé mooy la séduction lélection et la trahison pour ñun se c' mi si leneen li nag mooy j'en appelle aussi à la lucidité et au pragmatisme aussi du côté de l'opposition parce que li ñu sénégalais yi wax mooy ñun ñi nga xamante ni ñoo nekk ci kujje gi wax ne li fi am ba tey soppi ko te loolu mënta ñàkk il faut aussi qu'on arrive à transcender li nga xamante ni moom mooy les les les les égos transcender li nga xamante ni moom mooy les querelles euh, à la petite semaine transcender li nga xamante ni aussi moom mooy querelles intestines yi nga xam mën naa ñàkk pour s'élever on on manque de tey da nga gis ne jafe-jafe am na pour ñu s'élever wu on est incapable de s'élever au-delà bien entendu de li nga xamante ni wax dëgg yàlla ay xale yu ndaw sax ci jardin d'enfants war nañ ko tey saagante bi xastante bi ak ak boddigonte bi moi en tout cas je suis désolé mais mais c'est des raisons pour dire davantage aux jeunes que on ne doit pas perdre espoir que les jeunes que nous sommes aujourd'hui qui ne sont pas suffisamment représentés dans cette, dans cette Assemblée nationale ces jeunes-là on encore mille et une raison de reprendre leur pays de reprendre euh, la vie politique bi nga xamante ni tey mënuñu ko bàyyi entre des mains inexpertes wala entre des mains yoo xamante ni wax dëgg yàlla saagante ak xastante rek la mais Cheikh Anta Diop daf doon wax lu am solo dëgg bu àndeek ay saaga day wàññi doole ji te kilifa yaa ngi ñuy seetaan àdduna yëpp a ngi ñuy seetaan donc encore une fois de la tenue de la ñu def ko ci teggin ak yar ak xam-xam xam ne à fin de la journée ñu ni neen la kenn raxuñu